jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di am mbégte jàkkaarloo wala yéen tey fii ci Géejawaay li ñu fi indi mooy ëppal presse bi Youssou Ndour war a def war koo jàkkaarloog ak presse bi ngir waajal digganteem ak caatu Yoff Assane Ndiaye sunu frère di Baol Production tëgg ko li ñu njëkk def mooy ñaanal Assane bis bi yàlla may ko ci ndam yàlla moom ci réussite total ndax ndaw la tamit góorgóorlu di wax ne dimanche nan fexe ba képp kuy amateur làmb nga dem arène nationale ngir jàppale ko Youssou Ndour ginnaaw bi loon ñoo di la sant di la siyaare tey doom nga xam nan nga waaj ak si digganteeg caatu yoof nga xam ne li des ay fan yu tuuti rek ci des waaw ginnaaw auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw ma sant yàlla julli suñu bi di sant samay ñaari waajur di sant waa aynu maan bu baax aw ma seen fay ku si mel ni grand fara maa ngi koy sant bu baax a baax a baax ak gaynde waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di gërëm sama papa liiru ak sama papa Maguette Seck ak sama waa ko ñoo xam ne ñoom laay àndal boobu ba tey ba combat bi taxawee bàyyi wuñu ma benn yoon ma wéet maa leen di sant di leen gërëm waaw. Caatu Yoff ñu dégg ci ay waxam mu ne dina la nax ba daan la. waaw ndax daa ànd doole te man xale laa nekk sama écurie papa nekk sama ginnaaw mag comme que dañ daf may nax nañ xaar ba la juge ñu xool yàggatul. deux jours des xaw ma trois jours bu nekkee daf may ndax dina leer. sorti bu njëkk ginaar bi sa papa dëddoo àdduna muy sa première sortie tey nga war a génn sans sa papa fekk deuxième nooy koy àndee moom nga xam ne manqué. waaw comme dab rek comme bii passé ni ma ñëwee woon rek ànd samay papa samay mag lu ma la wax léegi léegi rek sama papa dem na mais am na ñu fi bàyyi dénk na fi ay nit ay kilifa ñoom ñoo ngi fi te ñoom ñoo may ommat ba bis ba ma daan kii jël bu set bi ci car yoof waaw ah li nu jaaxal tey sa papa ni mu mel ci géejawaay di icône kenn ku ne jaar ci keppaaram ñu gis fi ñi nga xam ne ñooy teñor yu mag yi gisuñu leen fi gisuñu Balla Gaye 2 gisuñu Lac gi Guiers gisuñu Gouye jaan leen fi gis tey taxawaay boobu tey ci ñi nga ñoom leen dund saa yàggul waaw dernier temps Lac kii liiru jaan dernier temps ñëw waaw ñooñu ñii Balla Gaye 2 bëggoon na ñëw man maa ne bu mu ñëw lu tax ndax fi mu jugee kooku suma mag la suma papa la suma lépp la la de guerre suma xarit la dafa génn yaa ngi dégg kon man amuma kenn géejuwaay xaruma yàlla ñëpp samay grand lañ samay mag lañ bu ñëwee yàgg yàgg si buntu ba lañ yem dugg si géew ba kon lu fa war man maa koy def ñoom teggil naa la sart bi nañ xaar ma daan booy bi yóbbu leen drapeau bi waaw bi ñu gis Youssou Ndour bi ñu gisoon combat bi weesu ak combat bi dafa mel ni da wàññi poids lan mooy sababu wàññi poids waaw nekkoon suñu di liggéey rek ndax ku ne xam na ni làmb entraînement la liggéey moo tax ma ànd ak samay mag ñu entraîné ma ku si mel ni Maguette Seck dafa ma bàyyiwul boobu ba tey a sama booy ñoom Lamine Sita ñoom Mbër gaa yëpp ñoom Sam bàyyiwuñu ak sama papa Ousmane Ndiaye chaque ngoon dafa may yóbbu stade di ma entraîné kon ñooñu mun mun ma leen fay. waaw non entraînement yi métti la rek su ma duggee làmb ja la le 16 incha allah loolu du feeñ bu neexee yàlla waaw.

boole laaj doo ko bàyyi mu ma. daa ma lan laa bëgg dogal waaw moom daa wax xalaatam rek. ay nitam ñoo ko waroon rek. mais ku ne xam na ni làmb bu waxee dëgg dëgg dëgg caar yof tollu ma fii. bu neexee yàlla yonent bi. samay supporters yabuma leen boobu ba tey ma la kii lépp lu fay war man maa koy def. maay xale maay bëre maay daan bu neexee yàlla. dañu laaj sa coach mu ne Youssou Ndour ma ne ko Youssou Ndour est-ce que dina ci xeex mu ne mu Youssou ñaan na ma ko xeex bi nga bëgg xeex ak Thiatou Yoff lan moo tax nga bëgg a laaleeg ci xeex ba pare doog xam nga lu tax loolu ndax moom nee jàmbaar la mu fekk ma ma nekk jàmbaar yaa ngi dégg te man sama ñëpp ku seeraat sama combat xam sama benn tànk du fekk si beneen bi si ginnaaw si kanam laa jëm te su taxee ma fekk ko fa bu dawee ma fekk ko fa. xeex yéen Caatu Yoff ñëwul taxaw man di xeex a man loolu xalaatu ko. Thier. waaw Youssou ñu lu ma la man bëgguma sax ba ñu may tudd sama ndaanaan nañ ma bàyyi may root di daan ba si kanam si kanam lañ may xam mais murguñ maa xam léegi Caatu Yoof adversaire la comme adversaire yi rek waaw kooku mënut a weesu adversaire ñi ma bëreel ñëpp moom moo ci gën a tuuti waaw. côté côté. waaw loolu dama noonu du ma wax ndax làmb man damay ñëw ngir sama bopp. damay ñëw ngir bëree sama bopp at sama fulaat sama fayda waaw at école bi mais du leneen ramas jëluma ramas sama bopp laay bëreel dàqoo ba ñëpp ku ne xam nañ muy bëreel moom daa feebaroon loolu jaruñu mos ci détaillé ok côté mobilisation ndax gis nañ ni Assane mi tëgg seen nawle la te mu ngi xaar li mu def ci yéen ngeen ko mu toll lan ngay wax sa supporter yi ngeen jënd ticket jël ñu way sax waaw booy comme lu ma leen wax sa jour rek arène bi dina fees dina neex dina booy sant ma leen xulo sant ma leen xeex sant ma leen yàq benn sées ndax liy am si géew man maa koy def mais sant ma kenn mu sànni xeer sant ma kenn mu def dara ma jàpp booy bi daan ko ànd sama papa Ousmane Ndiaye ak ñoom liiru ma daan booy bi dem ñëw. waaw. ndax loolu jàll waxoon nañ ko man déggoo lu ma la wax buñ ma si boolewul dinaa nekk ndaanaan si nii wala si naa bu neexee yàlla liiru jaan tey nga ëmb sa rak waaw sama doom sa waaw waaye da nga wu ma damaa génnoon wax na ndànk wax suba la wuy ma waa li ma lay laaj mooy. waaw. suba la anniversaire. waaw. géejewaay waaw waaw. ngeen ci bis boo xam ne képp ku bëgg géejewaay ah, daanaka am nga la na xay. la nga war a ëmb tey sa doom indi ko. incha allah mbaa yéen bàyyi xel ci li ngeen jógee. waaw nga war a indi sa doom. Euh, na la yàlla musal ci cat at làmmeñ su dee booloo fii la fekk baax géejewaay ku booloo suñu la ko gisee loolu fàtte nañ ko li suñu kanam la ñuy wax loolu passé na li sunu kanam la ñuy wax ni yàlla musal ci cat ak làmmeñ Youssou Ndour yal na ko yàlla may ndam lu seddu guy xale bu yaru la xale bu yaru la ndaanaan la yaru la ndaanaan la bëreegul nag ci kanam lay di comprendre yal ko yàlla lafal cat sunu doom la man su su ma ñëwee ñëwal naa champion yi nekk Guédiawaye yëpp su ñëwal naa ñëpp sama doom la sama rakk la sama xarit la te yaru na tuwaar kàlla maa sall yu su bëreegul de yu bëreegul de yàlla na ko yàlla lafal cat ba dimanche ak jàmm. Yoff nee na bu ngeen bëree mu daan leen bu day wax lu ko neex rek day wax lu ko neex ah, adversaire yi bëri na te wuute ba dimanche ak jàmm. Youssou wooteel. waaw ñëpp may ma ma woote doo woote man maay woote. anniversaire bi déglu déglul mbuuy ma. ñun kii doomu Géejawaay la fi la juddoo papam def na lu ne Sénégal def na lu ne Géejawaay comprendre nga li may ñaan autorité yi nekk Géejawaay. ñu fàttali ko démb ni Baye Balla am na lu mu leen defal te lu ñëw jàppale doomam. Youssou Ndour maam la fi bàyyi sunu rakk la sunu doom la sunu lépp la autorité nag Guédiawaye damaa bëgg ñëw jënd bee yëpp jàppale ku mu duy na nationale ba mu fees dell ba mu fees dell waaw an ma Mor ñëw ndax ay magam la ne ak i nijaayam ak i baayam dong ñoo fi nekk autorité nag Guédiawaye laa wax autorité ñu ñëw jàppale ku ci bëgg a gagné di nga ñëw jàppale Youssou Ndour man maa la wax lii yàlla na yàlla lafal cet ah doo ga doo am dara doo waaw nan ko jàppale ci kaw ci kanam jërëjëf waaw di gërëmaat ñëpp di santaat ñëpp di gërëm waa yow ak lu bëri Rasulullah di Cambérène waa Cambérène fi mu tëdd yàlla ko yàlla yërëm ba Alioune suma mag Alioune maa ngi koy sant Balla Gaye 2 ñëpp maa ngi leen sant sama papa maa ngi Seck di woo waa Guédiawaye Aliou Sall sama papa Ahmed sama papa la ñu fay kooku du ma ko fàtte mbës du ma ko fàtte di gërëm ñëpp di sant ñëpp di xam ni gaay kat nañ ma ñaanal le 16 maam Ndambu Seydou Guy si neexee yàlla yonti woo naa ñëpp Modou Gueye maa ngi koy woo Pape Mama Fall maa ngi koy woo Andaw maa ngi koy woo képp koo xam ne lay dëgg géej waaye di ma jàppale rek maa ngi lay woo fara ndaw kooku mention spéciale fara mention spéciale kooku lépp bee yëpp moo jënd waaw laay contenaire sama gars yëpp maa leen di bëggee ñaata bolok nga jënd moom gën naa kii Assane fa Assane Ndiaye waaw muy diis problème incha allah rek. te mooy am sa doom nga ëmb war ko ëmb dimanche indi